looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññ borom alal yi ci ñuy saraxe soññ borom am-am yi pour ñuy saraxe lu tax ndax alal dafay laabal euh, sarax dafay laabal seen alal faqad kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yusi at tijjaar moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam danaa dénk commerçant yi ñi nga xam ne yàlla dénk na leen as tuut ñuy yaxantu di jaay di jënd ñu leen di tuddee ay commerçant moo xam yu ndaw yi la moo xam yu mag yi yeneen bi doon na leen wax ne yaa ma'ashara tujjaari ee yéen yi inna haza al bay'i yaxduruhu laxwu wal xalaf fa charribuuhu bi sadaqa ee <coughs> yéen yi njaay mi ngeen di njaay yaxantu bi ngeen di yaxantu léeg ay mbóosóor da ciy dugg léeg ay waat da ciy dugg waaw néew na tey jaaykat bu ay mbóosóor waxi caaxaan ak waxi kasaw kasaw ak tàppanteeg jigéen ñeeg tàppanteeg góor geek wax waxu saay saay ak wax waxu bandi néew na ci commerçant néew na nga dem ci marché néew na nga dem ci fu ñuy jaay ak a jënd ba nga dugg fa ba génn déggoo fa loo naan astaghfirullah loo naan cëy loo tax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na yéen jaaykat yi njaay mi ngeen di jaay ak jënd day daa bari ay mbóosóor allaxu waaye wal dafa bari ay waat ak bëri cay ci jaaykati àddina bi ñoo xam ne waat guddi waat bëccëg billaahi nangam la billaahi wallaahi walra fekk la may wax dara amu ci te jaay di waat dañ koo tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dénkaane ne yéen jaaykat yi moytu leen waat ci seen njaay waaye tey ci sunu dund fii nu toll ci sunu àdduna néew na ñaari yi yonent bi wax ci njaay ku ko gisut caaxaan ak ay waat comme nag caaxaan ak ay waat dafa bari ci njaay ak njënd kon kat yéen commerçant yi seetal leen seen alal ji ci sarax setal leen seen njaay mi ci sarax setal leen seen mboosóor yooyu ak seen waat yi ci sarax sarax yi ngeen di génne di ko dimbalee way néew doole yi di ko dimbalee miskiin yi di ko dugal fi sabilillah ci yoonu yàlla tabaraka wa taala loolu day da leen di dimbali ci mboosóor yooyu ngeen doon wax léeg sax mu nekk tarxiisu làmmiñ waaye léeg sax mu nekk ak teweef ndax góor gu yàgg marché moom ak jigéen ju yàgg marché néew na ci ñoom ba duñu wax caaxaan néew na ci ñoom ba duñu wax mbóosóor néew na ci ñoom ba duñ ko def du ñëpp nag am na ci ñu yàlla musal waaye am na ci ñoo xam ne daanaka moo tax iblis bañ ko laajee yow iblis yan barab nga gën a bëgg ci barab yi mu ne marché ban yan barab moo gën a bon ci barab yi mu ne marché maanaam fa ñuy jaayee ak fa ñuy jënd moo gën a yées moo gën a bon ci barab yi nga xam ne mu ngi ci kaw suuf kon mbokki jullit yi ndeke alal dana salte ndeke alal dana tilim ndeke alal dana ñàkk laab waaye la koy laabal mooy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax mooy la yonent bi doon dénk jaaykat yi jëndkat yi nee na leen njaay mi ak njënd mi dey dafa bëri ay mbóosóor ak ay caaxaan yi ci nekk ak ay waxu kasaw kasaw ak ay waatak nangam kon nag lan la mu ne laabal leen ko fa sharribuhu bi sodoko mbóosóor yooyu caaxaan yooyu waxi neen yooyu léeboon ak lëppoon yooyu ngeen ciy def waay waay waay waay waay waay waay laabal leen seen alal jiwaay ci saraxe yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla waxoon na ko ci alquran xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihi alhamdulilah ñoo ngi jéggalu ci dagg ojo boobu dafa am ku dugg dagg ojo bi kon incha allah ñu yem foofu ba suba ak jàmm dinañ ko yeggali bu soobee suñu borom jazakumullah xeyran